politique ak yu ci aju ñu delloo leen ko te loolu si amnistie la ñu ko bugg a jaaree amnistie musoon na am ci Sénégal amati fi sax euh, ñu war nag tey dellusiwaat ci yooya xew-xew ak euh, jamono jëmu yema woon ci wàllu politique xëy na itam la ca laxasu woon ci wàllu politique ñu ciy dalal euh, doyen Mamadou Sy Albert ñu ngi lay nuyu am mbégte lool dalalaat la si démb ak tey doyen. maa ngi lay fay Fatou di am mbette di am mbette di la di la nuyu di sargal di nuyu auditeurs yi aussi. Mhm. alors doyen ni ma ko waxee tey euh, histoire wu Amnesty ci senegal moom la ñuy waxtaanee Amnesty nag di faase lépp loo xam ne xewoon na euh, du ay nit la ñu koy jagleel wante ay xew-xew la yenn saay nag xëy na ñu joxoñ ci wala euh, bëgg cee raxas nit ci ay mbir yoo xam ni doon nañ ko ko toppee Amnesty foog naa ne bi njëkk am ci Sénégal su ma juumlee mooy bi ñu defaloon. woon président Mamadou Dia gannaaw bi ko Senghor toppee woon euh, ci tentative de coup d'état ak yu ci aju mu amoon 1976 euh, ndax mun nga ñu ñëwaatal si xew-xew boobu ak contexte politique bi mu yemoo woon. waaw li nga wax noonu la 76. la euh, loi d'amnistie commencé Senghor moo ko moo ko moo ko moo ko defoon mille neuf léegi nag euh, histoire boobu quand même histoire bu bu rëy la bu rëy la ndaxte euh, balaa amnistie bi jot am na lu taxoon euh, diggante président Senghor ak président Mamadou Dia ñoom ñaar ñëpp ñoo bokkoon parti ñoo bokkoon nguur dañu déggoo woon wante Mamadou Ba Mamadou Dia bi mu nekk président du conseil moom am na déclaration bi mu defoon déclaration boobu nag euh, boo xoolee Dia nekk na euh, président du conseil 1957 ba 62 mm-hmm. donc euh, ci statut boobu en tant que président du conseil Dia def benn déclaration déclaration bu mu bu mu doon woote que dañu war a Sénégal dafa war a nekk société libre am économie de développement Euh, maanaam Dia àndul woon ak euh, société coloniale àndul woon ak économie de traite donc euh, discours boobu neexul woon Senghor mm-hmm. loolu moo tax bi mu defee discours boobu Senghor àndu ci mu am xuloo seen biir bu xuloo bi amee nag Euh, ci la euh, am na yenn député yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak sengoor ñoom ne dañuy def motion de censure pour daaneel gouvernement bi mm. motion de censure boobu nag Mamadou Dia àndu ci woon mu mu ne moom andu euh, ci ba loolu indi xuloo diggante Dia ak président Senghor finalement assemblée bi dafa def réunion sax kër Lamine Gueye Euh, ci kër Lamine Gueye la ñuy daaneel gouvernement bi fekk nag Mamadou Ba Mamadou Dia moom en tant que président du conseil moom moo yore woon armée bi moo yore woon gendarmerie bi euh, mu tere assemblée bi toog mu tere député yi àgg ci assemblée ñi nga xam ne bëggoon nañu motion de censure donc loolu daal moo indi événement 62 ba ñu ne euh, président Senghor ne Mamadou Dia coup d'état la doon def hmm. donc bu ñu génnee daal waxu coup d'état lañ ko arrêté ñu jugé ko euh, bu ñu ko jugé nag dañ ko condamné yóbbu ko Kédougou ci loolu Mamadou Dia toog na lu lu yàgg lu ëpp euh, fukki at ci prison Kédougou léegi soixante-quatorze la Senghor jël grâce hmm. de jël grâce génne du jaar ci prison bi hmm. mais grace bi doyul euh, doyul woon ndaxte Mamadou Dia luñ ko jiiñ luñ ko teg comme sanction biñ koy tëj dafa diis mhm. mooy coup coup d'état mhm. donc pour dindi coup d'état bi euh, la de Senghor dafa waroon jël loi d'amnistie mooy loi d'amnistie bu soixante seize bi mhm. donc loolu moo indi euh, boo xoolee ci contexte bi Euh, ñaari responsable euh, parti UPS ki yore pouvoir exécutif ki yore pouvoir législatif ñu xuloo ba ñu jàpp du jaar tëj ko euh, grâce bi lu muy firnde mooy que Senghor xamoon na ñu ngi dugg ci multipartisme 76 hmm. lañu ñu commencé dugg ci multipartisme avant multipartisme li presque parti unique rek moo amoon mhm. donc multipartisme bi boo xoolee bu baax a baax loi d'amnistie boobu loolu la ëmboon que Senghor xam na ne mënatul nekk moom rek ci euh, géopolitique bi il faut mu dugg ci multipartisme multipartisme bi sax boo xoolee ni mu ci duggee moom dafa ne nañu yem quatre courants donc euh, loolu mooy contexte historique euh, loi loi d'amnistie léegi nag Mamadou Dia ba mu amee amnistie bi dafa génn bon commencé duggaat plus tard ci arène politique bi. Hmm. alors euh, euh, président Senghor wax nga ne multipartisme bi moo nekkoon si ginnaaw mais ban intérêt la amoon euh, si amnistie Mamadou Dia Euh, bu ñu ko méngalee peut-être ak tey jii li nga xam ne moom moo xew euh, ay ay ay raison politique nekk ci ginnaaw gannaaw euh, multipartisme bi est-ce que am na leneen lu taxoon Senghor jël boobu décision ah am na am na lu taxoon am na lu taxoon parce que boo xoolee jamono boobu 74 ñu ngi ci crise crise économique bu bu bu rëy période boobu la commence ci Sénégal Euh, agriculture bi demul woon industrie bi demul euh, soo gisee aussi euh, situation école bi université yi après 68 la donc situation bu xaw difficile ci Senghor la woon sur le plan économie et sur le plan politique parti unique mënatul woon am mënatul woon am moom xamoon ne que il faut mu am multipartisme ku nekk dugg ci léegi nag pour euh, répondre ci li sa bi Dia dafa mas nekk symbole hmm. ñi nga xam ne ñu ngi woon ci parti de gauche yi muy PA yi muy PA yi dañ ko dañ ko euh, sengoor dafa interdire PA yi hmm. PA yi muy woon ci clandestinité hmm. mais muy woon ci Sénégal di yëngu di di xeex pour am indépendance bon boo gisee parti de gauche yi aussi Euh, période boobu lañu ñu commencé muy muy LD muy AJ ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mhm. donc Senghor amoon na pression politique bu rëy ñi nga xam ne dañ presque dañu àndoon ak Mamadou Dia mhm. dañ dañ am na ànd ak moom am na ñi nga xam ne aussi même bu ñu nekkul woon ci mouvance Mamadou Dia euh, dañu buggoon moom génn prison. d'accord kon dafa meloon ni demande sociale. demande sociale et politique. d'accord. social bi politique sociale bi mooy économie bi doxul woon mhm. muy euh, agriculture bi muy industrie bi muy système éducatif bi euh, soo gisee période boobu aussi amoon na ay yëngu-yëngu ci Afrique ci ci adduna bi mhm. bon maintenant sur euh, sur Senghor xamoon na ne que tension sociale et politique bi def ko waroon moytu pour mu lu ko daloon 1968 bañ ko dalaat mhm. Euh, donc euh, loolu am na c'est vrai une demande sociale ak une demande politique très très très très forte bon boo ci yokkee aussi euh, Senghor xamoon na fu mu jëm ci la commencé lamb Abdou Diouf. d'accord boobu mi ngi bëgg a dem. waaw mu ngi bëgg a dem. Hmm. mu mu mu mu xam ne que constitution bi mu yore woon. Hmm. dafa laaj mu am premier ministre. donc euh, loolu contexte politique bu bu xaw a bu xaw a gis ci loxo Senghor mu xam ne il faut mu lâcher il faut mu am démo ouverture démocratique foofu la commencé. est-ce que tam mun nañu wax ne dafa bëggoon réparer xëy na euh, tooñ bu mu def ma mu Dia bala muy dem di ko fi bàyyi xamul après naka lay mujjee. ah waaw waaw loolu loolu loolu lu wér la. ndaxte euh, Mamadou Dia euh, bi mu nekkee prison ak bi mu génn ba keroog bu muy génn àdduna euh, dafa dafa xamul woon sax lu tax nguur jaral loolu Senghor hmm. te xam na ne amoon na sengoor xamoon na ne am Mamadou Dia amoon na ko respect hmm. delloo na ko njukkal musu ko wor jullit la dafa am engagement politique bu wóor Euh, loolu Senghor mënul woon bàyyi noonu Mamadou Dia surtout ko xamoon na ne am na premier ministre démocratie bi mu ngi mu ngi gën a law euh, Dia mënul woon des rek ci prison mu génne ko mais mu xam ne ne que euh, coup d'état dafa dafa diis ci nit surtout acteur politique mm-hmm. donc il fallait que mu réhabiliter Mamadou Dia. Mm-hmm. Euh, pour moom mu mën a liggéey li mu nar a liggéey ak projet bi mu bi mu bi mu amoon. kon mënees naa jàpp ne Senghor demoon na ba ràññee ni euh, la ñu toppee woon Mamadou Dia ba mu tëj ko euh, dara du ci dëgg. bon même su fekkente ne waxu ko. Hmm. xam na ne jaa amul woon xel coup d'état. Hmm. ndaxte Dia bu bëggoon def coup d'état nga yore armée bi nga yore police bi nga nekk président du conseil euh, teeg euh, ku am ku am ku am ku am ku am audace la mm-hmm. euh, ragalul dara kooku su su fekkonte ne coup d'état la bëggoon def mën na def su su soo xoolee période boobu aussi jaa ku amoon baat ci parti socialiste la mm-hmm. d'ailleurs sax li mu wa woon Senghor mooy que comme assemblée bi demee na noonu au lieu ñuy indi motion de censure moom discours bi mu def ba discours boobu indi motion de censure dafa waxoon nañu dellu ci parti bi soo soo gisee sax euh, pour en tout cas suñu contexte ñi Senghor dafa bëggoon am nekk président de la République nekk président du parti wante Dia loolu andu ci woon dafa bëggoon ñu séparer pouvoir bi ak parti bi que que ñu jox parti bi doole euh, mën a euh, atte digganteem ak euh, ak ak Senghor donc c'est vrai que Senghor xam naa daal dafa diisoon ci moom que mu mu tëj ki nga xam ne ànd na ak moom lu yàgg. Mm-hmm. am aussi influence boobu ci élite politique bi ak élite économique bi parce que jaamoo doon presque c'était vrai ni nga ko doon gise mooy le patriote mm-hmm. ah que que dafa jëloon distance am muy France muy puissance étrangère yi euh, soo gisee ni mu doon doxalee sax en tant que président du conseil moom dafa doon dem ci pays socialiste yi yi nga xam ne France euh, neexul woon ak ñooñ mais su su jóge woon foofu sax du jaar France pour wax leen lan dafa fa mm-hmm. donc nit ki nga xam ne bon euh, am na melokaan boobu Senghor euh, def naa aussi euh, humaniste la mm-hmm. humaniste la que que loolu lu mas a woote xam na ne mënul mënul def lu metti loolu ci Mamadou Dia mu bàyyi nguur fekk réglé wul problème Mamadou Dia mm-hmm. alors gannaaw am euh, amnistie président Mamadou Dia beneen am euh, amnistie bi fi am euh, ci jamonoy président Abdoulaye Wade la mu daal di kon soxal ay crimes politique yoo xam ni amoon na diggante 93 ba 2004 loi boobu di loi Ezzan jàll le 17 février 2005 ci la ko président Abdoulaye Wade promulgué mu nag visé woon particulièrement ñi nga xam ni ñoom la ñu joxoñoon ba tëj leen ci faat faatug maître Babacar Sèye alors ndax mën nañu euh, méngale contexte politique boobu noonu bu 2005 bi président Abdoulaye Wade jëlee dogal boobu ak euh, bi ñu weesu di euh, bu diggante président Senghor ak Mamadou Dia. déedéet dafa am dafa am différence parce que même boo xoolee loi exemple bi comme ni nga ko waxee dafa am ku ñu rey maître Sèye bon soo xoolee aussi euh, même avant avant loi d'amnistie 2002 bu Abdoulaye Wade bi amoon na loi d'amnistie 91 ak Abdou Diouf mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañu amoon euh, ci conflit Casamance donc ñaari yooyu conflit Casamance ak euh, loi Ezzan bi mm-hmm. on est dans le domaine strictement politique. Mm-hmm. te ay bakkan dafa rot. ay bakkan dafa rot. 91. gouvernement bi ak les combattants du MMDC dañu am accord seen seen diggante bu ñu defee loi d'amnistie ñu libérer les militants les combattants du MFDC bon par contre euh, loi d'amnistie Abdoulaye Wade 2002 bi loolu dafa am crime de sang que ñooñu euh, dañ leen tuum que ñoom ñoo rey euh, maître Sey euh, ñu condamné leen Euh, Ablaye Wade bokkoon na ci mais dafa am non lieu mais loi d'amnistie bi dafa réhabilité dafa libéré ñi nga xam ne dañ leen tout tuumoon ci assassinat maître euh, maître euh, maître Seck donc la on one vraiment ci ci domaine de crime c'est c'est des infractions criminelles mm-hmm. ah soo soo gisee sax accusation yi ni mu diisee mooy coup d'état attentat crime Euh, atteinte à la sûreté de l'État euh, à, à l'intégrité territoriale yooyu ay infraction yu diis la mm-hmm. ah dafa wuute lool lool ak ka euh, Mamadou Dia Mamadou Dia conflit politique la mm-hmm. diggante président de la République ak président du conseil wante fale diggante MFDC ak gouvernement conflit politique la mm-hmm. problème loi Ezzan bi Euh, euh, crime la crime la euh, donc am na am na maintenant fu ñuy am quand même lien bi mooy que décision bi décision politique la muy muy bu jaar muy bu MFDC muy bu 2002 bu Abdoulaye Wade c'est décision politique la que dañuy seet naka la ñuy régler benn problème politique ñu jaar ci benn loi pour am stabilité pour am euh, euh, consensus pour mën a tourner page bi nga xam ne une euh, page page bu metti ci gouvernement wala ci opposition bi. alors aussi bien président Abdou Diouf que Abdoulaye wadd ban mm. xëy na besoin la ñu amoon pour jël yooyu loi d'amnistie. ah ah oui ah, ah, pour quatre-vingt-onze Euh, soo gisee euh, situation bu nekkoon ci ci euh, conflit Casamance conflit bu rëy la te xaw a yàgg xaw a xaw a métti moo am de conséquence dramatique muy de am na ñu ñu ci dee am na ñu population yu déplacé wu Abdou Diouf xamoon na ne Casamance problème bu bu rëy ci Sénégal Sénégal pour mu développer sans Casamance du du du yomb. donc loolu euh, décision politique la pour am accord diggante gouvernement ak euh, mouvement MFDC hmm. bon soo gisee aussi euh, problème Abdoulaye Wade bon décision politique la parce que Euh, parce que crime quand même ñu rey maître Sèye nekk un juge euh, un juge nekk un juge politique nekk responsable Euh, loolu il fallait euh, que PDS bon mën a mën a laver son honneur Wade ni mu amee non-lieu dañu bëggatul woon euh, ñu leen di jiiñ meurtre ba maître donc loolu aussi dimension politique bi baa ngi baa ngi baa ngi noonu donc des décrispations la ñuy seet ñoom ñëpp muy quatre muy euh, bu deux mille euh, bu deux mille mhm. mais lu euh, lu président Ablaye Wade euh, est-ce que amul xëy na euh, benn genre bor bu mu doon fay ndaxte dañ ko tuumaaloon ni moom ak ñoom Clédor seen ak ñeneen ñi nga xam ne joxoñ nañ leen ci mbir moomu ñoom ñoo nekkoon xëy na ñoo waxtaanee walla boog tooñ nañu ñooñu te fekk na xëy na defuñu dara ndax tudd nañ leen si seen ay relation diggante waa parti démocratique sénégalais ak euh, lu aju si si Fatou Maître Sèye bi Ablaye Wade président Ablaye Wade est-ce que dafa euh, euh, buggoon na xëy na moom itam fay bor wala réparer tort boo xamante ni teg nañ ko ay nit si si si si peut-être seen proximité ak moom. waaw loolu loolu moom am na ñu nga xam dañ ko jege woon ñu ñu ñu accuser ko ñoo ñu ñooñu des ci prison condamné leen vingt ans moom mu jël nguur bon dafa waroon euh, laver l'honneur de ces euh, collaborateurs la mais aussi euh, amoon na calcul quand même politique parce que parce que lu mel ni PDS. ñu lay jiiñ crime crime crime bu toll noonu nga jël nguur foo jaar il faut nga laver sa honneur waaw Wade bëggoon na laver son honneur en tant que leader li laver honneur PDS ak militant yi nga xam ne wala des yi yu ko jege woon bon euh, amoon na aussi quand même euh, diggante PDS ak PS euh, am na lu ñu waxul. Hmm. Ah, waaw am na lu ñu waxul que affaire boobu soo dégloo la famille de Maître Sèye bon nga xam ne bon waxuñu waxuñu lépp daal. même Clédor seen sax même Clédor Sène boobu ba tey am na lu muy junj aussi. voilà voilà am na am na en tout cas des na des na ci enquête bi pour ñu xam dëgg dëgg dëgg dëgg euh, lu tax ñu rey maître Sèye fan lañ ko reyee euh, bon am na omerta daal y un silence quelque part euh, maintenant est-ce que silence complice la. loolu mënuma ko wax diggante PDS ak PS ñoom bon ay grand parti lañu am nañu expérience xamante nañu euh, mën nañu wax daal que c'est pas c'est pas ya am nañ des zones d'ombre ba tey jii daal. léegi leerul. Hmm. Mhm. alors euh, est-ce que tey amnistie boobu kon euh, doyen réglé na problème euh, na problème boobu. bu ban. Euh, amnistie euh, bu 93 ba 2004 est-ce que réglé na problème politique boobu notamment affaire Me Sèye non non non non non réglé wul réglé wul euh, wax dëgg yàlla bon mën de de mën nañu mën nañu même xalaat ne que Clédor Sène ñoom Assane Diop waa PDS bon parti socialiste. bon euh, crime bi daal am na nu ko la ko waxee des des zones d'ombre fan la ñu rey maître ah, euh, lu tax ñu ñu ñu rey ko euh, pour man des na hmm. des na pour vraiment xam exactement fu ñu ko rey ak ak lu tax hmm. loolu il faut que nit ñi aussi bàyyi ci xel ndaxte situation bo mu ngi fii bi léegi hmm. malgré l'amnistie soo déglu rek euh, la famille de Mercy nga xam ne affaire bi jeexul. Mm-hmm. jeexul le le c'est pas euh, amnistie bi am na c'est vrai mais question yu bari yu bari yu bari des na leer ko. alors est-ce que kon am ni si boobu mun nañu mun nañu jàpp ne xëy na jaadu na si boobu jamono wala si moom amul lenn loo xam ne daf koy tënk day neex rek kilifa yi ñu daal di koy ñu daal di koy def wala euh, dañu war a xaar mu nekk ay mbir yoo xam ne féete na boor ba ñëpp xam li ciy dëgg ñu doog ko dogal. waaw amnistie moom dafa xaw doy waar benn benn benn côté euh, ndaxte euh, soo xoolee depuis soixante-seize comme ni ñu ko waxee sànq. Euh, ba tey ji nguur gi mooy am problème jéem a régler jéem a régler problème par jaar ci loi d'amnistie bon loi d'amnistie nag assemblée moo koy voté et loolu euh, euh, defe naa daal régler nañu problème politique yi c'est vrai que day am apaisement xel yi dinañu dal dinañu jàll ci question boobu tourné ko bon mais mais ba léegi des na parce que boo xoolee par exemple ma xoolal rek muy muy MFDC. Mm-hmm. muy problème MFDC yi. Mm-hmm. ba léegi question yooyu ñu ngi fi. leerul. Mm-hmm. leerul donc amnistie mënul mënul effacer ci ci xel mémoire bi day des. et loolu il faut euh, ñu ñu seet bon euh, gaaga loi bi euh, mën mënul bañ a ñàkk. mais am na quand une situation comme ni ñu ko waxee un travail de mémoire qu'il faut faire hmm. am na am na un travail de mémoire pour que nit ñi toog waxante dëgg euh, bu dee dañuy baal ñu ñu baalu bu dee dañuy fayu ñu fayu mais mu bañ a nekk daal silence. waaw parce que dafa mel ni lu ñuy forcer ñëw rek defee ko noonu après mu jeex ñi ci loxo woon wala ñu ci gaañoon daanaka du ñu am choix euh, du ñu am daal benn euh, euh, contestation boo xam ne mun nañ ko si def. voilà man su su su xasee ba am loi d'amnistie moom kenn ci dellu. waaw wax ci mbir yee sax dañ koy tere fa. waa dañ koy tere donc loolu blocage bu rëy la léegi nag comme ni nga ko waxee. Euh, démocratie day dem bon tey jii euh, defe naa euh, suñu en tout cas suñuy jàngat problème ja problème bu rëy la woon mais musul am daje musul am daje jaa bu mu génne war waroon na nekk possible mhm. que nit ñi def ko question nationale. déglu Mamadou jaar déglu euh, ñi nga xam ne ànd nañu ak Senghor ñu xam dëgg-dëgg lan moo xewoon mm-hmm. loolu suñ ko discuter euh, suñu biir euh, defe naa moo gën a moo gën am impact que loi d'amnistie mm-hmm. problème Casamance c'est la même chose mm-hmm. ba am nañu accord def nañu loi d'amnistie mais tey jii boo xoolee Casamance problème MFDC c'est le même problème il est entier loolu fii tamit lu muy wane mooy que euh, gouvernement bi dafa aakimoo problème Casamance mm-hmm. askan bi xamul lu xew Casamance dëgg-dëgg même waa Casamance xamuñ donc suñu mënoon toog ci problème Casamance euh, gouvernement bi opposition bi syndicat yi société mu nekk débat national ñu xam Casamance lan moo fa xew mm-hmm. ak lan mooy solution bi loolu moo gën a impact que amnistie bu 91. c'est la même chose pour euh, pour euh, crime crime la. Mhm. mais ban responsabilité la état bi am. ban responsabilité le PS ak PDS am. ban responsabilité ñi nga xam ne euh, ñu ngi woon ak euh, maître Sèye parce que quand même dafa demoon liggéey nekk ci euh, en activité au service de l'État mhm. donc loolu aussi suñu mënoon toog ñu ñu déglu euh, tous les acteurs ñu déglu famiyam mais xëy na famiyam dina dina suuf dina dina dina dina libéré wu mm-hmm. mais aussi suñu suñu mémoire du fàtte problème boobu mm-hmm. defe naa daal pour euh, euh, que loi bi xëy na baax na mais mémoire bi moo gën a baax mm-hmm. dañ def travail de de mémoire pour mën a xam dëgg dégg lan moo xew Euh, le disque euh, pardon bi naka lay jógee soo gisee sax par exemple euh, les les conflits de guerre la mm. moom muy par exemple Afrique du Sud wala yeneen yeneen pays bon seen concertation c'est même euh, au, au Rwanda c'est parce que nit ñi xam nañu léegi il faut mu am travail de mémoire amnistie rek doy doyatul yaa yaa un travail complémentaire euh, mémoriel bi nga xam ne defe naa dafa war a ànd ak euh, loi loi loi d'amnistie bi. Mm-hmm. Mm. alors ñu ñëw nag si amnistie bi nga xam ne tey euh, moom la ñu yëkkatiwaat mu indiwaat sax euh, ñu waxtaanee euh, loolu ci démb ak tey bi mbokk yi fekkee nag ñuy doog dab yéen a ci réew mi FM doyen Mamadou Sy Albert la ñuy dalal ci waxtaanu tey bi dikkaat ci amnistie jot am ci Sénégal sabab bi mooy ni ma ko waxee li président Macky Sall wax keroog àllarba bële ci conseil des ministres ne ministre de la justice Ismaïla Madior Fall na xool naka la ñuy def ba amnistier wala jël loi boo xam ne gaañoon seen ay àq ak yelleef ci wàllu ñu ñàkkoon ko ñu mun ko amaat xel yëpp nag dem si Karim Wade ak xalifa euh, Sall ndax président Macky Sall la ñu ko jiitu doon wut loola itam lay wut ci loi d'amnistie bi ñuy ñuy séntu doyen. waaw loolu la loolu nuroo en tout cas bu ñu dégloo conseil des ministre euh, li mu wax euh, mooy que ministre de la justice garde des sceaux xool possibilité. ak benn schéma adéquat pour le amnistier ñi nga xam ne mënatuñu woon euh, exercer seen droit de vote loolu su suñ ko euh, jéemee comprendre mooy que euh, dafa bëgg a consolider dialogue national ak am ouverture donc ñu ngi ci politique na am na situation bi nga xam ne Euh, Macky Sall mu koy dund euh, neexu ko mooy am na ay sénégalais yi nga xam ne bon mënuñu voter mun mënuñu voter mais mënuñu leen élire yi tamit hmm. léegi nag dafa bëgg euh, mu am ouverture hmm. loolu tax comme ni nga ko waxee xel yëpp dem ci Khalifa ak Karim parce que ñoom mënuñu voter mënuñu mënuñu nekk candidat mënuñu mënuñu voter bon te loolu gis nañ ko depuis deux mille dix neuf conséquences yi mu indi mooy que ba coow euh, Karim Wade coow xalifa bon pratiquement ñëpp dañu jàpp ne ay prisonniers politiques la. dafa neex Macky Sall yóbbu leen prison condamné leen tere leen euh, ñu participer ci vie politique donc président xam na ne que situation bi fi mu nekk nii comme ni ñu waxoon d'ailleurs ci euh, Senghor président euh, Sall mën na mën na bañ a nekk candidat mille vingt quatre comme Senghor xamoon na ne que moom en mille neuf cent quatre vingt et un mënoon na dem. Hmm. Euh, Macky Sall xam na ne mën na bañ a nekk candidat mais su su nekkul candidat du nangu am responsabilité ñu ne ko euh, ëllëg yow yaa tere woon Karim yow yaa tere woon Khalifa. Mm-hmm. donc y' a problème de morale personnelle de Macky Sall bëggul ñu ñu teg ko loolu comme Senghor ni mu bañoon ñu teg ko cas euh, Mamadou Dia cas de conscience bon mais maintenant euh, boo ci boolee nag euh, est-ce que moom su leen mayee ñu ñëwaat ñu participer ci élection yi muy Karim muy Khalifa est-ce que loolu di ko dimbali pour mu laaj troisième candidature. Mm. donc mu ngi ci calcul euh, politique euh, léegi nag c'est sûr et certain que moom li mu bugg mooy ñi nga xam ne mënuñu voter mënuñu leen élire ñooñu la bugg indi ci géew bi. d'accord. alors am na ñu gis ne euh, bëgg a wàññi dangaru Ousmane Sonko moo tax mu def ko ànd nga si boppu xalaat. Non, non, non, non, non, non, non, je ne crois pas, je euh, lu am ba am. Hmm. Macky xam na ne Ousmane Sonko loolu téye ko ñu ànd ak Ousmane loolu téye leen. Hmm. ah déedéet c'est c'est Ousmane Sonko mu ngi def euh, liggéeyam bon yaakaaruma aussi euh, Karim wala Khalifa nangu dugg ci schéma yooyu pour affaiblir Ousmane Sonko. Hmm. Euh, que que par exemple en tout cas. Euh, du du du du homme politique la homme d'état la xam na ne euh, fii ak deux mille vingt quatre Sonko allié am mm-hmm. c'est des alliés ah. bon maintenant euh, c'est vrai politiquement bon waa Benno waa APR mën nañu yaakaar ne que so Khalifa bu nekkee candidat Karim nekk candidat mën na wàññi doole doole Ousmane Sonko loolu lu mën na am. Hmm. mais euh, mais c'est pas du tout du tout du tout euh, defe naa daal euh, makisal Sall jéemul seet pour pour pour le moment. Hmm. le moment la loi d'amnistie là dafa bëgg a problème Khalifa problème Karim maintenant am mën na am négociation. négociation fan. négociation diggante Macky ak PDS. Hmm. loolu loolu moo loolu moo gën destiné à l'horizon que, que isoler Sonko. Il y a, il que comme bon euh, su amee accord ak PDS c'est vrai que loolu moom mën na isoler euh, Ousmane Sonko mën na isoler aussi Khalifa. d'accord. Mm-hmm. alors kon su ma la déggee président Macky Sall ci am ni amnistie bi ñuy xaar intérêt mi ngi ëppee si Karim Wade que ci xalifa euh, Sall. ah loolu laa yaakaar de honnêtement euh, soo gisee lu tax Aminata Touré euh, digoon nañ ko mu nekk présidente assemblée nationale mu dem ba ci biir Macky Sall rocceegu ne bon mënatuma la yóbbu foofu fu nekk xam ne euh, PDS ni mu gisee Aminata Touré en tant qu'ancienne ministre de la justice hmm. donc loolu benn la mais ñaareel bi mooy que ñu ngi dem ci élection présidentielle mm. su fekkente ne Macky du candidat mm. euh, Macky mënul baña a ànd ak PDS en tant que parti libéral mm. ah muy premier tour su ba xëy na du am mm-hmm. mais bu ñu demee deuxième tour euh, Macky Sall ak euh, ak PDS mën nañu mën nañu am accord mën nañu am accord politique kon luwaa euh, loi d'amnistie bi mën nañoo njoxtu ne euh, waxtaan am na si diggante PDS ak Macky Sall euh, et non diggante Macky Sall ak Khalifa Sall parce que foofa itam am na ñu doon wax ne waxtaan dox na fa i sax mus nañu gisee. bon waxtaan moom du du ah, du ñàkk ñu ñu waxtaan mais en tout cas lu ñuy gis ni mm. PDS moo gën a jege Macky. Mm. ah moo gën a même bu fekkente ne c'est vrai que Macky Sall toj na euh, Karim toj na PDS xeex na leen euh, mais intérêt bu dee nguur moom euh, am nañu quand même am na am nañu am na fu bokk intérêt bon maintenant Khalifa euh, le, le, aussi suñuy euh, aussi en termes de de responsabilité bon de euh, homme d'État la euh, par euh, responsable socialiste la hmm. bon moo gën a neex a waxal que Ousmane Sonko. d'accord donc loolu aussi xam nañu que Khalifa am na personnalité am na une ligne de conduite bon man na dugg ci ay gestion de l'après Macky Sall Euh, parce que aussi euh, li ñu wax ni euh, ci loi d'amnistie bi bon defe naa aussi waru ñu ci génne que Macky Sall day day calculer lu muy aar ses arrières hmm. ah ses arrières politiques personnelles de de son parti. et loolu discussion mënul ñàkk ak PDS ak xalifa d'accord. am na ñu gis ne itam euh, loi d'amnistie bi li ko sabab bokk na si xëy na li ñu leen doon toppee ñoom euh, wala li ñu leen jiiñ ñoom ñi ànd ak président Macky Sall euh, bi ñu nekkee si nguur geeg léegi muy loo xam ne itam xëy na bu ko fi bàyyee mun naa indil gàllankoor ay nitam par exemple kii ñëw bu defee traque ni mu ko defee woon moom ay jafe-jafe mun na ko see fekk moom ak ay nitam est-ce que itam loola mën nañu ko jàppee comme comme sabab si loi d'amnistie bi. non dans dans l'absolu moom euh, gis nga communiqué conseil des ministres bi nañ ci bàyyi xel euh, ndaxte euh, moom schéma schéma le plus euh, adéquat à l'amnistie la wax schéma te schéma boobu euh, c'est surtout que les personnes yi nga xam ne mënatuñ amatuñu droit de vote mënu mënuñu voter mënuñu leen élire ñoo ñooñu lay ciblé bon maintenant la loi d'amnistie il faut que nit ñi xam ne euh, c'est une mesure générale c'est une mesure mm-hmm. générale bon léegi euh, de manière spécifique loi d'amnistie bi dina wax euh, dina wax champ d'application bi donc est-ce que loi d'amnistie bi nga xam ne euh, dafa jóg pour may ñi nga xam ne mënuñu woon voter ñu mën a voter loi boobu mënul mënul couvrir les les crimes économiques hmm. mënu mënul mënul couvrir les crimes les crimes économiques. tan tant que amul lien ak problème mu vote moom euh, je ne crois pas que mu am euh, de des des liens entre la loi d'amnistie bi ñuy waaj ak euh, situation. Euh, collaborateurs Macky Sall wala les partisans de Macky Sall maintenant nag bon c'est vrai c'est vrai que euh, loi d'amnistie moom bon euh, mën na nekk occasion man na mën na nekk occasion comme ni mu la ko waxee Macky Sall su defee loi d'amnistie pour se protéger demain mm. mais c'est sûr que du fàtte ses collaborateurs mm. ça ça c'est sûr alors kon loi d'amnistie bi prof euh, doyen su ma la déggee réglé wul problème bi yëpp pour Khalifa Sall ak Karim Wade. non non non non non réglé réglé réglé yaakaaruma ko yaakaaruma ko mun na dinañu mën a am droit à vote euh, ñu mën a parti nekk candidat à la à la à la présidentielle. Mm. mais coow coow coow coow lii du loolu coow lii du Karim nekk candidat euh, Khalifa nekk candidat coow lii mooy. Euh, deux mille vingt quatre. Hmm. su Macky Sall euh, jógee ci nguur gi lan moo nar a xew. Hmm. ah loi loolu mooy problème am day anticiper. Ah. am na am na lu muy gis bon que que dañu seet naka ngay protéger fii ak par exemple de dix ans c'est-à-dire que ku nar a ñëw. Hmm. le maximum deux mandats la mën a def. donc amnistie bi loolu lay jéem couvrir d'accord fii ak dix ans hmm. bon su su amee kenn euh, bu remplacer Macky naka la ngay protéger wu yow tamit hmm. ah, donc donc euh, loolu moom am na am na un esprit loi d'amnistie am na am na esprit d'anticipation euh, sur les événements sur les événements à venir hein. Mm. d'accord kon mën nañu jàpp ne du Karim Wade ak euh, ak Khalifa Sall rek ñoom am intérêt euh, si bi mais su su jàllee ñoom ban ban ban njëriñ la leen di amal réellement. non bu bu jàllee que bon mooy que euh, Khalifa dina nekk candidat. waaw Karim dina nekk candidat. mais loolu quand même sur la vie politique Khalifa ça la première fois de sa vie muy dem ci élection présidentielle. Mm. buggoon na ko def en deux mille dix neuf en tout euh, tout le monde sait que tey jii euh, Khalifa Gaga am na parti am taxaw mais mën na jëlaat parti socialiste ba tey jii donc loolu enjeu bu rëy pour pour Khalifa sur le plan politique mm. mais aussi bon si si jamais il a une chance historique d'être le président du Sénégal en deux mille vingt quatre mm. ndam bu rëy la pour moom. bon ba y' a aussi euh, maintenant euh, li mu dund ci nguuru makisal bon est-ce que du leen euh, delloo euh, bor hmm. donc loolu enjeu pour pour Khalifa la bon léegi Karim aussi c'est la même chose Karim candidat la woon bon ñu fexe ba dugal ko prison exilé ko. Euh, même le retour de Karim ça va être euh, une grande victoire pour Karim su su fekkee mën na nekk candidat mu participer. Mm. diriger PDS. Euh, nekk candidat présidentiel deux mille vingt quatre. c'est sûr et certain que moom aussi euh, ndam bu rëy la nekk ci moom si maintenant par extraordinaire mu nekk président en deux mille on imagine. dina am conséquence yu rëy ah muy Sénégal muy euh, suñu diggante ak euh, ak bitim réew donc am na enjeu daal yu rëy pour Khalifa et pour euh, et pour Karim. Mm-hmm. pourtant am na seen ay jegeñaale yu jàpp ne aussi bien grace bi que amnistie bi nekkul lu gën ci ñoom li gënoon mooy xëy na ñu def procès bu aw si yoon ba seetal leen ci euh, ndax d'accord nga si boobu analyse amnistie bi xëy na du du avantage trop ci ñoom. waaw d' accord daal loolu d' accord naa mooy mooy travail de mémoire bi ma la wax euh, su amoon révision de procès ñu ñu tegaat procès bi ci yoon mu am règle ñu ñu ñu am conclusion ñu libérer leen euh, loolu si loolu moo jëkk ci seen statut muy muy xalifa muy muy muy Karim euh, loolu dina firnde que justice Euh, ñëwaat na ci euh, décision am euh, jël décision bi nga xam ne moo gën a méngu ci aspiration sénégalais yi parce que boo xoolee Gaga Khalifa ak Karim contesté nañ mais sénégalais yi lu ñu gën a jàpp lu lu tax ñu mere Macky Sall mooy que dafa utiliser nguuram pour tere ñi nga xam ne ay adversaire lañ donc loolu de de pour pour euh, Khalifa et pour euh, pour Karim mm. bon il il dinañu am dinañu am possibilité en tout cas participer ci vie politique fii ak deux mille deux mille vingt quatre mm. bon Macky Sall nag bon c'est vrai que xamaguñu xamaguñu est-ce que dina nekk candidat wala du euh, wala est-ce que dina nekk candidat mm. ah. alors euh, est-ce que comme président Senghor mun nañu effectivement wax ni Macky Sall peut-être demam lay lay waaj moom itam nekk di réparer ay ay euh, ay tort yu mu mun yu mu defoon ay erreur yu ñu mun a jàpp ne def na ko mu mu lor ay nit euh, li ma si bëgg a laaj mooy ndax question euh, amnistie bi lijjanti na troisième mandat bi. waaw waaw li lijjanti na parce que. tey jii Macky Sall bu jëloon ba am ba voté loi bi Karim ak Khalifa mu participer moom su nekkee candidat day dem ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel bu ko waxee ce dossier est recevable que mën nga participer bon mais loolu Macky Macky Sall euh, euh, c'est sûr et certain. comme ni nga ko waxee sànq dina discuter ak euh, fii ak loi bi di am dina am discussion ak PDS dina am discussion ak Khalifa ak peut-être ñeneen euh, acteurs politiques résistance bu naroon am euh, ci candidature bi defe naa du du demee noonu waa waa PS ak waa taxaw du ñu nekk devant la lutte contre le troisième mandat donc Macky day day day day gérer situation boobu mais day gérer aussi ëllëgam hmm. ni ma la ko waxee euh, loi loi d'amnistie parce que Macky Sall bëggul deux mille vingt quatre par exemple Khalifa wala Sonko wala Karim hmm. kenn ci ñooñu su nekkee président delloo leen luñ seen bor bi hmm. mais ñu ci bari ci ñoom dinañu dem prison. leer na. et demee prison lu dal lu dal xalifa lu Karim mën na leen dal en en deux mille vingt neuf. bon léegi euh, euh, su suñu defee loi d'amnistie bu leen di couvrir fii ak dix ans mhm. mais kenn du leen toroxal mhm. muy muy Sonko muy Khalifa muy du am du ñu amati fu ñu jaar parce que loi d'amnistie bi dina leen tere effectivement jërëjëf doyen jàngat bi leer na ñu ngi lay gërëm bu baax a baax amoon mbégte lool dalal la si démb ak tay bi. kon mbokk yi fi la ñuy yem ci waxtaan wi tey euh, soxaloon euh, amnistie ak euh, yi ñu ci jot a def ci Sénégal lu waroon ñu def ko lan moo làqatu woon ci ginnaaw di ay raison politique loolu yëpp dikk nañu ci diggante président Senghor ak Mamadou Dia Abdou Diouf ak coowal Casamance gi président Ablaye Wade ak mbiram maître Babacar Sèye ba ci tey président Sall Euh, ak euh, kaawu xalifa Sall ak Karim wadd yi ñu toppoon euh, ci nguuram gi daal di leen di tëcc ginnaaw ay grâce tey mu daal di annoncé ab loi d'amnistie ñu njoxtu ne xëy na ay raison politique itam moo nekk ci ginnaaw ñuy gërëm bu baax a baax doyen Mamadou Sy Albert di journaliste analyste politique bi ñu doon dalal tey ngir dellusiwaat ci yooyu xew-xew ak contexte yi mu amee woon di jamono yo yo mu xewee woon ak itam tolluwaay réew mi ci wàllu politique ca yooya jamono ñuy leen di gërëm bu baax baax a baax si déglu bi gërëm Diawo Diallo mi nekkoon si jàppandal gi Fatou Thiam Ngom moo nekkoon si kàddu gi émission bi mun ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel suñu chaîne ci YouTube dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ci démb ak tey jaa jëf ñu yendoog jàmm